personnel. ah di ñoo bokkoon benn table ak benn classe. en troisième au lycée d'application de l'école normale supérieure lycée Thierno Seydou Nourou Tall. sama xarit la suma doomu ndey la. ba tey on a gardé d'excellentes relations. Euh, Dégati c'est mon ami Sénégal xam nañ ko mag moom dañuy xuloo ak di juboo sama waay la nag <laughs> waaw dëgg dëgg bi may campagne sax man 2014 lu mu mësul defal nit. Mhm. dëgg defal na ma benn chanson boo xam ne moo ko arrangé ba pare way ci. ah bon jiital ci nag benn doomu Tamba bu ma ko waxoon muy booy dinaa am si c'est pour diir que loolu c'est notre c'est notre mouvement parce que ñii bi ñuy dem di lancer wu ñun ñoo demoon di leen supporter parce que aussi ñoom il faut leur rendre hommage PBS mhm. tey ku fi ku fi nekk ci underground bi di balbal lu ñoom la ah, ah, moom am na moom léegi gis nga loolu nag ba ñu koy def seen public ñun la woon ok waaw pour muy clair léegi non dama ne non damay wax sama gars yi laay waxal xam nañ xama xamante nañu donc xam nga euh, li ma la bëgg a expliquer mooy. Uh-huh. xam nga ñun boobu univers du rap du lu bees mais c'est très américain il fallait oser pouvoir. Euh, indi les cultures urbaines chez nous. boobu c'était Public Enemy c'était EPMD LL Cool J ñooñu ñooñu ñooñu ñooy ñi nga xamante ne réellement mm-hmm. moment boobu. ñoom ñoo tënk ñoo téye après nga dem ay France y avait les ayam euh, bon voilà euh, waaw xam nga MC Solar ministère amer euh, voilà xam nga yooyu dama la bëgg wax ne que c'est notre histoire nous. ok ñun loolu lañ dund ça c'est mille c'est les années <laughs> muy génération 80 daal mën naa ko waxee noonu waaw xam nga. donc il est plus mélomane que je pensais. maa ngi naan non man dama ko dund nag. <laughs> dund nga ko euh, kay. <laughs>